هو دعوات العزمى يزل بزله يمن بلا من وفي المعاشيا هو المنتهى مجدا وفهرا وزوددا هو المرتجى يوما يزيب النواقيا أول من لبى ألست بربكم هو روق ورحمن كان مناديا وكان نبيا بنبوة عالما وآدم بين الماء وتين الضاوية إن خطب نبي حالة لهمي وعظامي والدم دون رياهي حاجي عبد العزيز حاجي عبد العزيز مالك نينا أكرم بي من سيد الخمول أحد البرايا ورد البتول أكرم بي من شافعي مصفعي عند استداد خول يوم الفزع أكرم بي من ملخذ الرحيم أكرم بي من ملجأ الكريم أكرم بي أكرم بي أكرم بي أكرم بهذا العبد عند ربي أكرم بمن إلهنا يرحمنا أكرم بمن بجائه لنا المنى أكرم به من سيد الأولاء سبحانه معرف الإله أكرم بمن سجر الأشجار لعجله وخابت الأنهار شكا إليه جبل المولى من فتن منه لما يلقاه وسيد دبل رسالة وذبي وتيب بلا مجادلة وقبل الرسن بشاتو كما أبي قد عن بعروات زاكلو من معجزات هادي أليس الله خالق العباد فلتخشر صلاة كل عام على النبي المصطفى العدناني وآل العر الكرام تكرم في آل الدار وتلك ترخم وكل من زل عليه مرة صلى عليه لا وعش مرة فتبارك الله yàlla na yàlla defal ñu jàmm ak sutura man la Alassane Mbengue di tàggkatu rasulillahi di géwlu yonante bi sallallahu wa sallam na ci guddeeg bëccëg lépp lu ma ci am lepp luma am tagg yonante bi sallallahu Alaihi Wasallam sallam ko may ah di nuyu borom tele bi di seigne Daouda sis, ñu ngi lay ziar bu baax di la ñaanal yalla yalla yalla doli sutur doli barke fi fi nga bëgg tele bi ak ag fa yalla na ag fa ko raw ci barke yonante bi sallallahu Alaihi Wasallam. ah di sante yalla bu baax baax di nuyu ñëpp di balu xàq ñëpp yalla yalla boole julli biñu eh, genn ni yalla na yalla mañu fekke wat ko ay dewende di ak gudda fan ah di sante yalla bu baax baax ah premier eh, li nga laaj sànq mooy eh, fi ñu nekk nii mooy Famba Ndiogu Famba Ndiogu di kër bo xamanteni ah dañ ko fon dañ ko fondement fondement bo xamanteni alquran lañ def lañ def fondé ñu fondé kër gi ak euh suñu papa ñu naan ko Baye malik Ndiogu mo fi nekkon yor dara bu mag di jangal alquran amna kilifa yo xamanteni fi lañu genn ci ci ci dara ji lañu genné kilifa yu bari ci dara ji lañu genné kon mu nek nit ko xamanteni ni nit ku bëgg alquran la nit ku sopp alquran di liggéeyal alquran mu yor fi daara ji yor fi daara ji yor fi daara ba mu yagg mu jël daara yobbu ko barñe mu nefa nefa nefa ñi wat da dañ daan dem euh, euh, nawet dañ daan ñëw euh nekk andi daara ji fii bu nawete bu noré ñu yobbu daara ji barñe dundam yep ligéyal alcorane nak mu ligéyal alcorane dundam yep kon kep ko nga xamanteni bi ci kër gi nga ciosano rek war nga am référence ci lolu nga xamni ni ah war a war sa sa lepp don sa yitt don sa lepp waaw mu andak andak ak euh, sunu mam yi fi newon di bay Moussa Mbeng di kilifa ci kër gi encore waaye yàlla dogal na mag ñëpp dem nañu yàlla yàlla yërëm leen jéggal leen kaamil bi nekk chaque euh, at mu ne ñu ngi koy ñu koy taxawoo ci biir kër gi loolu yàlla na yàgg ñun sunu ki jur sama yaay ci kër gi la jóge ki jur sama yaay euh, ci kër gi la dëkk sama yaay jóge fee si kër baay Daawda Mbeng waaye sama yaay ci kër gi la jóge kon loolu sant naa bu baax yal na yàlla may ñu ñu ñu fekkeeku nga ay ati ati ati ati nit ku ne nag na nga jël référence ci kër gi foo nekk rek buñ ne kii kër Baye Ndiogu la jóge nanga nekk jàmbaar foofu waaw na nekk jàmbaar foofu te xam ne yow référence nga te mag ñi dañ ñu sas sas nañu sas bu rëy ndax boo nekkee xale gis sa mag gis na gis na say baay say maam bëgg alxuraan sopp alxuraan yow amoo leen loodul loodul looy def loodul na sopp alxuraan bëgg alxuraan tënku ci jub nangoo liggéey jaamu yàlla nangoo liggéey mag ñi day ci li ci eh, lii lañu yar suñu baay yi kon ñun ñep nañu japp ci loolu ñu tënku ci <clears throat> góorgóorlu te al ne àdduna bi amul lu gën alquran ndax euh, alhaji malik dani euh, inna alqur inna alqur'ana quwal mi'zanu ta'rifu min ها ما غويت من الأسواق وزاد مصطفى من كل وصف حميد عاد عفا لا تفدي للرجاع البراه يا يوم المصطفى لا عزيم هو عتيدا ذن إن تذكروه قب القرآن له كرم الزوى من كل وصف حميد هذا لا تفهم دي للرجاء البرايا يوم المنى مزبا يا من يريد جنان القلد يسكنها فحدي ما طالب المرطايت تنامي فتبارك الله آه، خسيد يويو suñu maam alhaji malik radiallahu taala anhu moo ko barkeeloo ci alquran kon yàlla yàlla dimbali ñu ci barke alquranul karim yàlla suturaal ñu yàlla jàppale ñu yàlla def ñu def def ñu dégg-dégg jullit ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa